ci biir dëkk ci xalaat mbir yépp mbir mu rëy la tënk naa ko ci ñaari baat ndax ñu gën koy mën a xam gën koy mën a dégg gën koo mën a dunde ñaari baat yi mooy yan mooy wéetal sunu borom ci lépp doyloo Sëriñ Tuubaa suñ digganteek moom ci lépp nañ ko tënk foofu la la mooy ñaari baata ca dolli ko nan fas yéenaa sax ci jaamu yàlla sunu kem kattan fas sax ci liggéeyal sëriñ bi ci lépp lu baax lépp lu baax ñu jébbal ko ko fas yéene koo liggéeyal kon nag noonu nii la sax ci jaamu yàlla sax ci liggéeyal sëriñ bi te yàlla rekk a tax noonu lekk la kàddu yi ma doon wax ci gannaaw euh, tabaarakallaahu gone yi dellu nañ ca moo di rekk sëriñ bi la ci am solo ci nun nan fexe gannaawal lépp sunu kem kàttan te yàlla rekk tax la ca dolli ko nu jublu sëriñ bi rek di ko jéem a gën a xam di ko jéem a gën a dund jéem gi gën a dund moo di sax ci lim bëgg rek te moom amuluk bëgg lu dul boroomam rekk ak wéy ci ndigalal boroom ak bu ak topp sangu bi def yi mu ko booleel loolu foofu tënk bi foofu rekk la nan jéem a xam loolu rekk nan ko jéem a dund nag sax ci dakk alhamdulillahi rabbil alamin lépp sëñ yuusu waxaale na ko ci kàddoom yii doxin wi wenn rekk la mën a doon du doon ñaari doxin munta doon ñaari doxin waaye nag yaatu na lool nag dox gi moom yaatu na doxin wi ci gannaaw sëriñ bi wenn rekk la mën a doon won gannaaw àdduna dara bañ caarax te jublu sëriñ bi sax ca dàkk la cay des nag mooy yéene sa kem kàttan ci lu baax di def lu baax rek di bañ lu bon rekk te sax ca dàkk tënk baa ngoo jërë ngeen jëf kon sant rek moo ci des di seeral nag sama bokk yi taalibi yépp sama bokk yi jullit yépp sama cant ak sama bokki isbu tarxi yi waxoon naa leen ne leen du man du yéen lépp sëñ tu sëñ bi dañoo jóg rek ma xelmati leen gëstu leen tuuti gëmewuma leen ma ànd ak booba ba léegi kon nag mel na ni leer na dama ko waxee woon ne ko du man du yéen lépp sëriñ bi xam ngeen noonu fañ tàmbalee di dox ba ci jataay bii loolu duy caaxaan lépp lépp sëriñ bi diggam ak boroom rek léppam daraam génnul diggante ak boroom kon nag lii moom sëriñ bi dong nga digg ma borom yoonu kenn nekku ci suñu yoon nekku ci xanaa kay di gën a gëm di gën a wéetal di gën a bëgg di gën a jublu sax ca dak loolu rekk la du leneen ne sëñ yuusu kàddu yi dégg naa ko yëpp waaye gëm naa yëpp it isbutal xiyaag li aju ci moom lépp alal li sëñ Tuubaa gëm naa ko doo gëm naa ko te noonu rek laa fas yéenaa dund ak yéen incha allah feek maa ngi noy li ci sunu kanam lépp sama xel dal na li ci sama kanam ndax du kenn lépp sëriñ bee dara suutut suutut suut dara suutut lépp ci loxol sëñ na xel dal bu baax nan dundee sëriñ bi rek suñu kem kattan bu ko defee rek ñu wàcc la ca des ñu bàyyi kook sëñ bi loolu rek la nee sant naa leen lool loolu doy na loolu nag dëkk doy rek doomu aadama la faw nag mënu ma leen sant ah, waaw hmm. doonuma ci dara waaye nag doy teg doomu aadama moo nekk ci ñëpp mool moo tax nag mënuma leen a ñàkk sant loolu rek la loolu du leneen ah, waaw lépp jeex na alhamdulilah alhamdulilah na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal seen loxo mu ñaan na ñëpp tàllal seen loxo xale yi ak soxna yi fañ nekk dañ toog ñun ñoo ñëw teg leen ciw yoon na ñëpp ne amin yàlla na fi lekk loolu tamit amin amiin amiin amiin amiin jërëjëf